suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ne su ko xaari doon jar youtube bu ñambi tv bësal na bi ñu la nga abonné ndax ngay am vidéo yi ñu dugal chaque jour di nuyu mbooloo mi fi mag ak ndaw di leen jox te di leen nuyu nuyu islaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. di sa alhamdulillahi rabbi alamin ni jamalon ko fi ñaanon yalla mu fekkan ñu fi niñ ko won suñ borom mayé nañu ko ndax fekkan nañu ci jamm bañ talat ko di def kon alhamdulillah mu melni am nañ fi ay gan gan yoo xamante ni ñu ngi joge ko ci ay gox ñëw daje fi ndeg bis bi mm, ndax am na ñu baye ko Sokone am ñu baye ko ba Kër Samba Gueye sori na wax dëgg yàlla waaye bis bee leen ñor ba tax ñi def ñu teew fi di xam ne li ñu fi dajalee wax dëgg yàlla yàgg nay dajale mbooloo waaye nag nit ñi dajee nii la baaxoo di demee muy diggante ndaw jigéen waaw Cheikh Moussa de la waxoon ndaw ñi bari nañ ñu waaw waaw jigéen ñi bari nañ ñu ne waaw ndax booy xool ñooy àdduna waaw ñoom ñooy àdduna ñooy doxal mbir kon dem na ni mel na ni fiy dafa am si ñuñ ko tànn pour enele ko ci ñu war a waxtaan mu mel ni ki ñuy ubbi waxtaan wi ba Ali Cissé nawet bi ñu ngi ciy jiital suñ sang suñ mbokk taalibe da doomu Cheikh Moussa man du ma wax sax ne Moussa Touré muqaddam la ci kër gi Moussa Touré doom la ci kër

ndax xam ne ñëpp xam nañ ko da jigéen ju man góor muy soxna Ancam wàcc liggéey ñu waroon koo rob tàkkusaan moo tax ñun ñoo fi waroon a jiitu waaye léegi lay ñëw xàggaguñ sax suñu kër ma ne ko Pape comme programme bi ñun ñoo ci waroon a jiitu léegi nañ dem bañ gis ñu loolu nag la ñuy njëkk di jégalu waaye ñoo fi waroon a njëkk a teew te yaakaar naa ne loolu buñ ko waxee itam da ngeen ñu ko mën a jéggal waaw di wax rek na man suma waxtaan daanaka. si taalibe laay jëm ak Cheikh Moussa mi nga xam ne moo fi représenté Cheikh Moussa yaakaar naa ne gune laa duma ma gune 84 laa commencé jébbalu 84 saa suñ ñëwaan ñun bu ñëwee niñ xamee Cheikh Moussa noonu lañ ko xamee ba léegi saa suñ wàccaan liggéey ba wàcc bu sang bi wu waxee day wax ne ana Moussa Touré mu ne ko Cissé mu ne ko waxal ak jaamu yàlla yi yaakaar naa ne si kër Cheikh Moussa xamul benn muqaddam bu ñuy toppate jaarul si loxo Cheikh Moussa ndax Cheikh Moussa su fekkoon mbooloo rek ko ko ñor muy Cheikh Moussa Touré léegi kenn waxatu ko waaye dafa am lu ko Cheikh Moussa joxoon damay wax ne kër Cheikh Moussa coow loo dégg da ci yokk lu ci bokk wala nga wàññi si lu ci bokkul lu ci bokk yooyu yokk si lu ci bokkut wala nga wàññi si lu ci bokk Cheikh Moussa nag bañ ko xamee ba léegi yokkut ci wàññiwut ci nañ ko xamee woon noonu la ñu xamee yaakaar naa ne ganaar bu da bóob xamewut bu na bu de doon cuub cuuj ak bu doon cuuj Cheikh Moussa yaakaar naa ne ñun wuuf nañu ñun ñëpp nag 84 ak léegi yaakaar naa yàgg na te man gune yi yaakaar naa ne fii xanaa mennam Ousmane mii rek laa fa tërbi waaye ñu si ne yëpp suma kanam lañ tërbiyo waaye may la xamal ne daara jii daal ñun kër gay benn daara lañ xamuñ ñaari daara xamuñ ñetti daara waaw xamuñ ñetti daara damay wax ne nag oto bu jógee payama jëm ci kër gay bi jógee kër Mame jëm ci kër gay xañ na dañ bokkul waaye rek waaye kër gay leen tax a jóg kon nag ñu laa xamal ne Cheikh Moussa ñun ñi nga xam ne Cheikh Moussa moo ñu yaral boppam ak yow ñi nga yar ñun ñëpp benn lañ ci yow sooy boo xam loolu xam ne ñun man fu ne xooleetuma la muqaddam njobootu Cheikh Moussa laa laa xoolee ndax heure bu ne Cheikh Moussa danaa wax joxal wax ak jaami ba léegi tante xamul benn tante bu ñuy dem du korité du liggéey du tax duñ wax jogal wax ak jaami kon nag ñun itam wax dëgg yàlla liñ gis si yow dañ ko doyloo si yow ba mu doy ñu moo tax Cheikh Moussa bu fekkoon tëflit rek la duñ topp Cheikh Moussa suñ papa am na tëflit suñ yaay am na tëflit te kuñ ci taseroon ci mbedd buñ la tëflee nga mer kon nag li ñu doon jeex Cheikh Moussa bu nekkoon suñ papa yi wala mu nekk fi bu ko suñ papa yi amoon ndigalam duñ def ci Cheikh Moussa Cheikh Moussa lim ñu ñoroyoon mooy yàlla rek lañ doon wut ci moom moom rek lañ fekk si moom buñ yaakaar ne cantu ciisee tax ñu topp ko de xaskan topp taxul ñu topp ko de turu daara taxul ñu topp ko de dafa xam luñ gis ci moom mu ñu doon xañ jaamu yàlla ba moo mat sëkk sëkk sëkk sëkk yàlla daf na baa ngeen maa xam na ngeen ma xam na ngeen ma jaamu waaw baa ngeen ma jaamu na ngeen ma xam ko ma xamul mënu maa jaamu xam ne dégg loo xamul dee yomb na waaye xam loo gisut amut te Cheikh Moussa de lépp lu mu ñu xamal depuis 84 ba léegi de man yaakaar naa avancement laa ci ji waaye gisuma si ñàkk dellu gannaaw te su ma gisoon lu des ga dellu gannaaw itam nu ko doon génn naa si bu yàgg kon dala xamal rek la dala seedeel na la kër gay benn bopp la xamul ñaar benn taalibe bi ne xamul ñaari taalibe képp ku ñu romb nag dem baal xel ne dëgër bopp de moje waaye duwul lu ñu gënal ñun suñ ko mënoon de saa suñuy ñëw mbooloo ñu topp saa suñuy dem itam mbooloo leen fii de yaakaar naa ne ak mu ne taalibe bu mën dem baal xel ne rek taalibe Cheikh Moussa la loolu moom ñu ngi la koy seedal te itam gune yi ñu am fulla lañ man de ñu ma nawloo lañ ndax bañ jàppee baat ba léegi kër gay dëkk bu mag la naqari naa liggéeyee waaye nag ñu ngi ñu ngi koy sàmm Dakar gay nekk itam naqari naa liggéey baat bi waaye ñu ngi koy sàmm xamul benn suur boo xam ne da nga ji seen arrière mukk seen avancement rek nag jëwriñ biñ samp fii muy Moussa Sall mii de mën nañ ko mën nañu ko seedeel tant bu mu dem de ñëpp de taalibe sax waaye tant bu mu dem de yaakaar naa bu siikare dañ ko xàmmee kon nag la ñu Cheikh Moussa jox waaw ñun de li ñuy ñaan yàlla mooy ñaanal ñu ko tànk ay ndaw lañ yor ay gune ay xale ay jigéen Cheikh Moussa nag noonu na jigéen fu ne ne jigéen ak ndaw ñoo yor réew te jigéen ñi fuñ bëri xale yi fuñ bëri ëllëg booy duggee da nga xam yaakaar Cheikh Moussa bi mooy dugg mag ñi dañ noon hay ñii daay gune ki jigéen rek a ko topp waaw jigéen a gune tey ñoom ñoo yor ñoo yor réew mi te kon yaakaar naa ne bu ne tànt boo dem jigéen ñaa góor ñi ñoo ci ëpp ñoo xale yi ñoo ci ëpp te li ñu xamal mooy baatu laa ilaha illallah kon ñu ngi koy li ñuy ñaanal daal mooy nañ ñu ko ñaanal ñu mën koo jàpp te téye ko liggéeye ko ba comme niñ ko Cheikh Moussa bëggee ñun daal loolu lañ bëgg kër gay gee nag moom naa ko na sëñ aada sooy boo xam ne ñun benn buum la ñuy nas si ñu nekk buum ak yàlla gi nga xam ne moom la ñu boole mu ne baatu laa ilaha illallah damaa yaakaar ne ne séntu jant jarut jarut jarut buuxante jaamu yàlla gi de mooy tefe loo xam ne xam nañ fi mu dalee waaye xamuñ fu muy am ndax fu ñu ko jëlee du jeex fu ko sotti itam du fees kon nag li ñu xamal mooy baatu laa ilaha illallah moom lañ fi yendoo moom la ñuy nekkee fu ñu mën a nekk nag ak fu ñu mën a doon loolu la ñuy liggéeyee moom la ñuy nekkee leen sant di leen gërëm man na dama noonu suñ sang waru fi toog sax ñu yëkkati kàddu waaye nag ah nit ki bu ñu la joxee kàddu doo mën a ñàkk man damaa kontaan sax ba li ma war a wax man xaw ma ko man naa leen ne kër gay ba kër gay daj danaa ko wax bi ñoom ñooy bàyyi faalu Cheikh waaye man maay bàyyi faalu kër gay kër gay lépp loo xam ne nit war na koo def ci daara ji suñ ma ko suñ defalee man lañ ko defal suñ ko doxee man lañ ko doxal suñ ko waxee man lañ ko dox waxal kon na tey lii man maa fi waroon a jiitu waaye nag nganta nag moom mag borom ñu leen di siyaare di leen ñaanal fan ak wér rek da xam ne ni Cheikh Moussa lim ñu jox lool la rek noon na suma dara du yàqu te wax dëgg yàlla dara am du yàqu boo ko déggee ñu yaakaar ne leneen la Cheikh Moussa dara am du dara lu yàlla kese ko yàlla nag sa dara du yàqu Cheikh Moussa léppam da ko jëloon jox ko yàlla kon nag ñu ne itam fa Cheikh Moussa doon waxuma ne mën nañ koo jot de waaye fu daan na wax ne sëñ Touba de mooy ah baram bi la tànk be gaaw na waaye bëgg naa fu mu teggee tànk ma teg fa suma tànk te itam daan na wax ne man de may xaj ci toolu sëñ Touba lu fi bëgg a yàq suñ ko su ma si daram dara naa ko mbaw kon nag waruñoo gën a gore Cheikh Moussa bu fekkoon xalal la nu ko noon xam na xalal waaye sotti topp doon xalal yàllaa ko ñoroon ba léegi itam yàlla boo demee daaru di nga xam ne daan na wax ne de li ma liggéeyee si yàlla de baa ngeen a xam ne lan la ma ma ma wàcc liggéey ba am juróom-ñaari at ci suuf te yaakaar naa ne tey bis ni ko daaru démb ku dem ci ku dem dem démb ci euh, tabaski bi ci tente bi di nga xam ne Cheikh Moussa jóge woon fa Cheikh Moussa dañu làq waaye mosu fi jógee de Cheikh Moussa du fi mos a jógee du fi mos a jógee ko xamoon na xam ba xamoon nag parce que fu ne ni moom am na fu làqu na xamee ba mënoo koo ji waaye ñu ne Cheikh Moussa fu ne na ñu boppam wan nañu yàlla ba nga xam ne fu mu nekk ñu ne ko yaa ngi nii mu ne mënatuñu réer de mënatuñu réer parce que lim ñu wan mooy yàlla yàlla rek a ko ñoroon te yàlla la ñu wonoon te yàlla du fi jóge du fi mos a jóge itam kon ñu ngi leen di siyaare di leen ñaanal fan ak wér di lu ci kàddu yi jërë ngeen jëf. rek di si siyaare ci sang bii teew fii ci jataay bi ndax li tax ma wax loolu. Cheikh Moussa rek moom lañ ko xoolee kon li ñu wax ci arab laa tarfa alwaasukum fawqa sawta nabi bu dee yëkkati seen kàddu mukk mu kàddu yonent bi kon ñu ñëpp di mooy suñu yonent bis ni ki tey ñii de xanaa dañ maa jox kàddu rek ma fas yéene barkelu ci bi commencé lii de man maa fa man kese maa waxtaan waxtaan bi ñu ñaalante ñu xuulu ñu tasaaroo yàlla def ñu dooleaat ko ma dem jëli xaali ak papa na fi ngeen mënta toll comme que suufu kër gaye la ñu ñëpp waaye kër gaye lañ kon lool mu dem ba bis ni ki tey kon lool doy na sant yàlla doy na sant yàlla man dama suma xol dafa sedd dama suma xol dafa sedd sedd sedd ba nga xamante ne nii xamut xamut xamut yem waaye kon daanaka suma kàddu ci sori waaw suma kàddu du ci sori wax dëgg yàlla kontaan naa bu baax a baax a baax a baax di sant sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di gën a découragé encouragé si nga xam ne nii ñoo fi teew di suñu rakki taalibe waaw ndax bi ñu wuyu ci Cheikh Moussa Pape mii mooma yóbbu ko Cheikh Moussa ma jébbalu ko Cheikh Moussa xaali mii sama magi taalibe ñi ñëpp samay magi taalibe ni kon buñ demee ba nga xam ne nii toll na jëmmi jamono ñu jox ma kàddu bi bis ni ki tey maa ngi cee kontaan kon li waral jotaay moo de yàlla ci boppam moo santaane nga xam ko do njëkk door koy jaamu suñ ko xamul doom duñ ko mën a jaamu yàlla mu ne taarifuuni qabla an taabuduuni fa ilam taarifuuni fa kayfa taabuduuni xam ma njëkk door may jaamu soo ma xamut doo mën a jaamu kon ku doon liggéey weer war ngaa xam bu weer dee fan ngaay dem ñu ban bureau fayeeku gis ko yàlla dañu ëwalul aaxiru saahiru baatinu moo njëkk te moo mujj te moo nëbb te moo feeñ jaam ñi fexe xam seen borom mucc na mucc àlaaxira kenn moomu ko jaamu yàlla kenn moomu ko yàlla kenn moomu ko du tijaan du xaadir du laayeen du ñeseen yàlla kenn la yàlla kenn la yàlla kenn la nay fexe bàyyi jëfi caaxaan dem jaamu ji yàlla suñ demee yàlla fay ñi du Mbàkke du Faal du Sirif du Haydara du leneen kon nag kër ga yi am ngeen lu yombut man de su taw doona Cheikh Moussa ah parce que borom daaru kon du baax ci man ndax xam naa ko béré béré béré béré ndax ko xóotoon ci lëndam ji laa ci laa bokk te lu kono du baax ba mas bu lu mas a baax kon nag ñu leen di sant di leen gërëm dañ demoon di tëgg ay musique wala ñu da def leneen su ma leen aayee ñu bañ bu leen neexee ñu dem dagg autorisation te du ma ci man dara bu boobaa lu am moo leen ko may kon buñ toogee ñoom ñuy ay xale ñu da ko def si biir kër si seen biir kër bàyyi kon loolu wax dëgg yàlla njub lañ ci jublu seen kilifa yi kontaan ci lool kon bu ñu demee ba génne ko ci mbedd mi xooñu képp ku ñu xoo da ngay kontaan wax dëgg yàlla ndax njaboot gi ñuy wax ne njabootu kër ga yaasin la te képp ku ci am jàmm mel na ni man ma am jàmm ku ci am fitna mel na ni man maa am fitna kon nag ku ci woote jàmm man damay sant yàlla ndax bu doon leneen ni manuma ci dara ndax buñ ne kër gay rek tudd nañ ma man ñëpp laa gërëm sant naa ñëpp sëñ bii nii tey damay déparé fii dem daaru fekk ko fa fekk fa yoro suroonañ man na tey buñ ko taajalee ñam même ngeen gi sax buñ ko taajalee ñam man ak moom ak yoro ñooy bokk lekk doo xam boo fa ñëwee sax doo xam ne kii mooy sëñ bi bu fekkee yow xamuloo ko wax dëgg yàlla ak woyof la su ko neexoon mën nga fa am ñaari fan ñett doo ko gis ñun sëñ bi sant ak ngërëm rek xale yi maa ngi leen a sant di leen gërëm di leen balwaq te xam ne wax dëgg yàlla man su ma mënoon a wax leneen dinaa wax lépp lii ndax kontaan naa lool ndax su ngeen doon def leneen nit mënu ci dara ndax fu mu ne mi nga xam ne tey moo ñoom ñoo ko organisé ak mbëdi ñoo ma gën a xam loi suñ doon def leneen matériel leen ñu dem foo xam ne nii du ma man dara kon suñ ñëwee def loo xam ne mag ñi yëppay teew dama leen ay sant gërëm leen su leen neexoon ni du ngeen ma ko yëgal ngeen jox ma nag cër bu ma sëkk ma dégg ko ci groupe bi maamu dellu ñëw di ba sama kër wax ma ko dellu ma fekkaat fële ci kéwal laay ba wax ma ko wax dëgg yàlla tey sax damaa xamoon nisir dem ca dëj ba li xaali da nii waaye dama jël nga ante ne comme yàlla dogol na lii te hitte ju mel nii la ma xebal sama doom na ko kaay dugg ci demal ma ca dëj ba man ma xaar lii ya kan nabi ma ñu fi Amadou ñu la fekk sax bo señ mi ñogut ma ngi sant ñu di gërëm suñu jaar jaar dal ñu nekkoon nag ñu bañu lépp bëgg xam-xam wu ci seen youtube bu ñambe tv na ñu la nga am vidéo yi chaque